What's up man, Manla Young Fifth, aka Zazo Dala, aka No Juju, aka Yeah! <laughs> Mike Summer guy, you know, my No Juju dudes, you know, some in Yeah. What do you do? My man, nigga! AKA Cheesecake. I, I, I, bang, bang, bracket. Aight, my nigga. Jeez. Jeez, man. PMC the mixtape, man. All the good in the house, you know what I'm saying? c'est un son qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, déjà ça va changer un peu de l'image négative que certains avaient de moi comme quoi Boevini, les Clash Gigan, les les gens qui n'avaient rien compris, you know, Abifan, Shoribi non, non, sont c'est des sons que n'avaient pas bien compris. Euh, ce son en fait il parle de man, là, tu vois, au fond ça parle de man, c'est ma personnalité, tu vois dem ba génn ci société li dem ci sama ay comportement dem ci sama ay gis-gis mes pensées you know socialement religieusement et euh, en général sur la vie tu vois euh, lu may wax ay affaire yu ay affaire yu may wax yo xamné euh, euh, c'est c'est vraiment très deep quoi ñu bëri mosuñu woon gis Omzo cette facette de Omzo Dollar quoi tu vois. Mm-hmm. amna man may nit bo xamné déjà lu may expliquer ci son bi c'est que man du ma nit boo xam du ma du nit buy calculer je suis quelqu'un qui n'a pas peur de sauter en disant qu'il y a la dynamité quoi, you feel me? Loolu c'est sama personnalité damay damay def lu ma neex et puis def lu def et puis lu yàlla def baax na ina def lu def et puis lu y def la def ah wax ma ko yaakaar wax mon kan la gëm même sa takkandeer na la bàyyi si lëndëm. amen ah, loolu bougon, bëggoon bougon société bi gën a gën juxi gars quoi loolu mo gën toog di yakar quoi man mosuma toog di yakar si nit man ah. nit pour mu defal ma li, defal ma li, defal ma li, lola laa wax si sama son know what I mean. Uh, sama mère sama mère sama mère sama mère sama père jeex na man amul ci keneen lu ma amee dara you feel me. sama yaay sama yaay sama yaay sama baay wax ma ko yaakaar wax ma kan nga gëm. te loolu la loolu la noonu la ñëpp war a demee yéen.